pour ñu libérer ñi nga xam ne dañ leen tëj ci jaay doole loolu nag lu du lu bees ci senegal parce que nguuru président Macky Sall depuis 2012 bu mu ñëwee ci nguur géeg léegi jaay doole la fi nekk moom dafa jàpp ni comme mu sa ñam kaso ku jóg rek ku ko jaaxal na la ñamam kaso parce que jàpp na ne su la ñamalee kaso da nga loolu moo tax bi mu ñëwee ba léegi. képp koo xam ne moom nga àndal loola neex def dara dara ci fekk képp koo xam ne yaa ngi wax wala ngay def loo xam ne dafay yàqal mi nga xooli pexe pour tëj la ci loolu la président Macky Sall nekk donc président Macky Sall dictature la nekk di installé au Sénégal jaay dooleel ji moom la mos a nekke mais fi mu toll nii dafa continuer nag di gën a ñoqali depuis quelque temps parce que comme moom xam na ne nguuram jeex na def na fukki at ak benn ben at ko fi dese te constitution bi nee ko mënoo nek candidat képp kuy wax lo xam ne dana ko yakal loolu mu bëgg pour jaay doole day jéem xol xool lay dugale ci kasso bi motax muy tëj ay doomu jambour yo xam ne defuñu dara parce que nit ci réew bo ci nekkee ñu ne réewum démocratie la am nga droit wax sa xalaat ñun tëj ñëpp soit dañu wax la lu jëf lo loo liberté d'expression moko may parce que ñu envoyé la ben poste

waaw ma ne ko Ousmane yow luñ la ji parce que man j'ai rien compris man ma ah même man xaw ma parce que ba léegi mu ngi ma wax lii lañ ma ji Papito Kara sax au moins jéem nañoo taqale di wut ay pexe pour jël ordinateur moom ak yooyu pour jéem a na ñu ko taqal. mais man dañ ma téye ba pare te amul benn reproche buñ ma def parce que xam nañ ne bu fekkente ne li ñuy wax ne moom lañ ma jàppe loolu ne mënuñ ma cee jàpp mais yéen jaay doole bii ñun day toog ko seetaan ci nguuru président Macky man ne ko loolu mu ne ma boobu léegi kenn waxuma dara dañ maa téye rek mais sénégalais yi seetaan quand même président Macky Sall parce que ñun war nañoo seetaan mu ñuy yegg fu nu yàlla yeggul lii mooy la nekk ci réew moo xam ne yow dangaa ñëw doonoo ko ci nguur ci say waajur doonoo ko ci say maam ñu dem élection fal la jox la pouvoir yëpp nga bëgg jël doole jox ñu la jox ñun sénégalais di nu duma ñu war a toog ñun sénégalais yi di ko defee nag ñàkk fay kon nguuru président Macky Sall il faut mu arrêté c' est la même chose ak ñi nga xam ñoom la tuddee force spéciale que sénégalais yépp tuddee force spéciale parce que ay tappalay neen la defuñu dara parce que koo ci jël muy anuja lu ñu wax daa daa daa am ay transfert yu ñu gis mu def wala dañu tere ko transfert xaalis Sénégal jël sa téléphone transfert quarante cinq mille ak vingt cinq ñu ne noo xaalis mu jëm daa am lu muy waajal Macky Sall la ngi ëppal Pape Ousmane Seck soixante mille francs mu ne Akhenaton yónnee ma soixante mille francs ñu ne tax Akhenaton di ko yónnee soixante mille francs dañ bokk ñoom ñaar benn baay ca Wumba Ngeewul Akhenaton seen baay ñu bokk ko ñoom ñaar ah mu yónnee ko soixante mille Macky Sall ko du la yónnee soixante mille fu mu ko teg parce que tout simplement ko loolu contribution la benn patriote bu nekk fii boo xam ne nee na moom da bëgg jàppale leen ci mobilisation bi ngeen nar a def ci ci manifestation pacifique parce que bu nit ñi jaawale liñ ko jàppee moom Pape Ousmane Seck ci mobilisation pacifique bu 8 juin ba donc dara xew nit nag am droit wut xaalis joxe pour ñu wut ay carte pour transporter ñu bëgg a ci manifestation pacifique ñu ne ko 60 millions, yooyu la euh, euh, euh, Akhenaton Ousseynou Seck sa doomu bàyyi yónnee loolu daal ñun dañoo jàpp ne tamit loolu affaire terrorisme mais Macky Sall ñu ñu ngi nous ñu ngi dëgg léegi ñu ñëw ñu ne non un cocktail molotov qui seen kër yi mais cocktail molotov nous bi élèves élèves, élève ak étudiant ñaata cocktail molotov lañ préparé sama ma bokkal génération xam nañ génération. may wax mhm. est-ce que à l'époque nous avons en tant qu'élève que da ngeen di préparé tant de est-ce que Ablaye jiñ nañu ko fi ñun en tant qu'élève ak étudiant préparé nañ ay cocktail molotov les gens de ma génération nous avons dit li je faisais partie des dirigeants du mouvement élève et du mouvement étudiant

ku fay liggéeyee nee na ma cap des biches même bu ñu matoon cent mun ñu faa yegg cap des biches du caaxaante sécurité ba fa am ñu jël ay ñetti nag ñeenti nit naan dañ doon waajal dem cap des biches xoolal ma bii tàmbale bu ñu nee cap des biches lu def wala tax bàyyiwuñ leen ñu dem ba jàpp leen ko mais fekk leen seen i kër ci ay place jàpp dañ doon waajal dem cap des biches xoolal ma bii tàmbale il faut que les gens beneen bi nga xam si moom lañ jàpp ñi nga xam ñoo lay mooy Abdou Karim Gueye

ci la ci la ko jëlee moom Abdou Karim Gueye moom boppam boo taxaw ne lañ koo empoisonné te kenn woowu ko def enquête moom Abdou Karim Gueye bi mu ko waxee léegi nee na dañ koo empoisonné moo ko waxal boppam. Abdou Karim Gueye moom bala maa wax ci tappale yi nu ko jàppale yi nga ko jàppee moom nañ ko libéré dem faj ko parce que moom actuellement mi ngi ci jafe-jafe. loolu du ñu nangu ñu bàyyi ko ci prison bi te bis bu ñu seetee Abdou Karim Gueye ba musiba dal ko ci biir prison bi président Macky Sall fa la nguuram di jeex loolu c'est important on ne nañ bàyyi doomu jàmbur parce que dafa feebar parce que leen ko jàppee ay tappale la doomu ay tappale moom dañu imaam Ndao moo wax ni moom ci biir prison bi mu fa duggee ko doon bunduxatal di ko torturer man def naa émission ak imaam Ndao à ci biir mu ne moom imaam Ndao ko mu leer nañ dañ ko doon euh, bunduxatal ci biir prison bi nekk weñ nga di dee ba mu leen di an di leen def ci am nguur ci ko woon ñu koy seet si xet gi metti lool tàngaay yu lool ba muy jël yéreem di ko di ko sëpp ci biir ndox mi lu mag juróomi yoon ci bis bi bu ko sëppee bu paree solaat ko bala moo toog ab diir mu wowal mu ne wax lii moom lu koy wowal mais imaam dafa wax lii kenn wowu ko boobu mi ngi dund kenn wowu ko mu ne dañ ma doon teg ay rayon laser ci biir prison kenn wowu ko ay mbokkam ne bi mu génnee prison ci la wér-gu-yaram sutante kon ñoom jàpp na ni li ko yóbbu àllaaxira kenn woowu leen mais Abdou Karim Gueye wax loolu moom Cheikh Omar Diagne et je rappelle Abdou mu koy wax sa imam ndaw génnagul àdduna mais ñu bëgg woo di ko jaay doole naan dañ koy yóbbu comme ni ko sunu gars yi waxee bu fekkente ne kay li la nañ ko dem yóbbu jugé flagrant délit mais li mu wax ñu ñu nañ a téye nañu bàyyi professeur Cheikh Omar Diagne moom ak Abdou Karim Gueye ñu ñibbi seen kër Cheikh Omar Diagne nag ci kàttanu yàlla dara jotu du ñu nangu mukk ñu téye ci président bi am lu ko def mu génn ñu naan si Omar Diagne daa la loolu c'est important ñu leeral ko Abdou Karim Gueye dafa feebar moo tax ñuy alerter mais en même temps nous disons que professeur Cheikh Omar Diagne dara jotu ko donc nguuru président Macky Sall li mu nekk nii sénégalais yi ñun ñoo ko mën a arrêté ni ñu ko mën a arrêté nag mooy ñu taxaw. jàkkaarloo ak moom wan ko ni réew mi moomu ko ci jàmm loolu moo tax Colibet wax ne àjjuma diinu jëm dañuy dajale sénégalais yi à la place de l'obélisque mooy ca Colobane bu ñëwee ñu def une marche pacifique mooy doxu ñaxtu ci jàmm jógee ci euh, euh, euh, place de l'obélisque dox ba rond-point BCEAO bu ñuy dem ci jàmm ñu encadré ñu ci jàmm parce xalaatuñ un seul instant que préfet Dakar interdire manifestation parce que ñun dañuy def suñu caution moo ko may amul droit interdire te xalaatuñ mu interdire ñun kay liñ koy tere mooy feemam yu bees yi mu andi moom préfet bu bees bi mu ñëwee ba léegi feem yu bees yi mu def mooy day entretenir le flou ba dernière minute mu daan ne moom léegi voilà autorisé na alors que moom sax warut a autorisé dafa war a constater ba mettre le dispositif pour ñu def marche bi kon nag préfet Dakar bu interdire mooy day violer la constitution amul droit interdire.

place de l'indépendance palais de la république parce que si nous amul une demande euh, une lettre d'information place de l'indépendance dañuy palais hôpital principal loi permettre mais pour nous pour itinéraire nous itinéraire les services de l'État nous itinéraire problème comme problème même nous autoriser ñu dem def fa sunu sunu marche pacifique jamm ñoy té bu mu ba dernière minute mu koy doog def parce que loolu yé fitna lay indi day tax ni di waajal ak di xol ni ñuy def ay pexé te loolu ñun nekkul sunu xel ñun jamm lañ bëgg encore une fois comme niñ ko daan defee bu ñu bayé ñu def sunu mars pacifique sunu doxu jàmm dem ba fa ñu war a heure bi ñu ak ñom daañu ko respecté inshallah allah dina am dara du xew

amul lu fi mas a nekk ci nekkuñ ci terrain bi jàppale leen bu leen jaayee doole kon nag ñoom bu leen dee jaay doole dañoo bëgg yéen yéen politiciens yi ngeen ñëw taxaw ci marché bi ñëpp gis leen ñi ci amul ngant nañ ñëw parce que fii kenn gënu fi sa morom kon li ñu bëgg mooy d'abord ñi nga xam ne ñoom ñooy ay députés yu lu fal mooy les députés de Yewwi Askan Wi et de Wallu nga xam ñoom lañ tuddee les députés de l'opposition et même les députés non inscrits ñu ngi leen di ñaan ñom ñëpp nañ ñëw taxaw féké mars pacifique bi àjjuma inshallah pour que ñëpp xam ñom bu askan wi jaxlé dañ ñëw taxaw seen wet kon ñi ngi xaar les 80 députés de Yewwi et walu et les deux députés non inscrits yi nga xam ne nañ ci opposition lañ bok ñu ñëw même ki nga xam ne ab ab ab député la bo xamné ne sax. tey jii ma nga woon ca beneen moment ba te tey jii fay na bu ñëwee tamit ñun daan ko daan ko yàlla pour mu fekkee pour mu fekkee marché parce que nag comme réew mi jaay doole moo fi moom tamit ñu ngi koy jaay doole bu ñëwee daan ko daan ko wan na ko ñoo bokk xeex kon daal ci gàttal ñu ngi ñaax sénégalais yëpp wax leen ni ñun li ñuy dox nii jàmm moom moo tax mu jóg ñun jàmm lañu bëgg waaye nag jàmm day lalu ci dëgg président Macky Sall jaay dooleem bi day dàq ci nii wala ci naa bu bëggee jàmm képp kuy nitu dëgg waxal président Macky Sall na bàyyi doomu jàmbur yi mu jàpp ci kaso bi te defuñu dara mu jàpp yóbbu leen ci kaso bi tëj leen fa te defuñu dara dafa leen te ñu bëri ñoom nar nañoo ñàkk seen liggéey xoolal sunu sœur boobu Amidia lan la def ñu war a jël doomu jàmbur tëj ko nii ci kaso bi tout simplement parce que c'est que c'est une dame boo xam ne dafa nekk def politique ba noppi def liggéeyam am kenn lu ko mu yàqal président Macky Sall jàpp ni kii àndul ak man naa ko jaay doole pour yàqal ko liggéeyam jaay ko doole peut sax pour euh, xoqatal ko pour bu génnee dana bàyyi li mu doon def kon président Macky Sall dañoo bëgg sénégalais yëpp xam ne ku dul naa fekk di nga xam ni réew mi fitna bu fi yeewoo président Macky Sall moo ko fi yee ñun jàmm lañ bëgg mais nag duñ ko seetaan mu ñuy nappaaje président Macky Sall yow doon duñ la seetaan yow nga ñuy nappaaje a taxawee ñun sénégalais yëpp wala

parce que son marché am nañ yàqin ni dara du xew incha allah jàmm am waaye libéré suñuy parce que réew Macky Sall moom ko kon lii lañ amoon pour wax leen ko wax ni nous sommes à euh, vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui le président Macky est en train de semer le bordel dans ce pays et d'installer la dictature il est en train d'arrêter d'honnêtes citoyens qui n'ont commis aucune faute tout simplement parce qu'ils sont contre lui mais en démocratie, il faut savoir souffrir. Souffrir la contradiction, souffrir l'opposition. Parce que c'est ça le fondement de la démocratie. Maintenant, aujourd'hui, le président Macky est en train de chercher à museler les Sénégalais, à museler les leaders d'opinion, à museler les porteurs de voix. Ce que nous ne saurions accepter. Nous allons faire face au président de la République parce que le pays ne lui appartient pas n'est pas un héritage de ses parents ou de ses, de ses grands-parents. Donc ce que nous exigeons, c'est la libération immédiate de tous les détenus politiques, parce qu'ils n'ont commis aucune faute. Ce qu'ils ont fait, c'est permis par la démocratie. Donc le président Sall doit accepter donc, de souffrir et de voir des Sénégalais s'opposer à son régime. C'est ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas fait autre chose. Donc nous exigeons cela et nous demandons au peuple sénégalais de se mobiliser et de venir massivement leur, euh, de venir massivement le vendredi 30 septembre pour vraiment euh, faire euh, une marche mémorable dans ce pays, mobiliser massivement et nous profitons de cela pour demander aux, partis politiques, surtout les, et surtout les députés qui viennent d'être élus, de Yévi et de Wallou, de venir massivement à la manifestation parce que c'est ça la démocratie et eux, ils doivent comprendre que le président Macky Sall est en train de procéder par élimination. Aujourd'hui, il, il, a commencé avec les leaders d'opinion et les porteurs de voix, mais demain, il va euh, attaquer les politiciens. Donc nous devons rester ensemble, soudés, pour faire face à la dictature du président Macky Sall. Donc je vous remercie. Question, il n'y en a pas. Une question. waa bi pour que ñu bëgg a poser question mën nañu poser seen question ah. deuxièmement euh, d'abord donc dem ngeen foofu seeti ne lan moo nekk seen état d'esprit ñoom nan lañ nekk D'abord, euh, pour la première question, pourquoi nous les considérons comme des détenus politiques Mais c'est parce que d'abord, la ruse qu'il y a derrière leur arrestation. Quand vous arrêtez quelqu'un par rapport à une opinion émise, même si vous considérez que c'est un délit d'opinion, vous ne pouvez pas passer par une autre voie que le flagrant Quand on essaie d'user de subterfuges pour aller à l'instruction, pour les maintenir en prison, ce n'est ni plus ni moins que vraiment euh, de, faire dans la politique politicienne. Donc c'est ça que nous dénonçons avec la dernière énergie. Et tous ces gens-là que nous avons cités, qui sont maintenus dans, euh, euh, en prison injustement, ce sont des gens qui n'ont commis aucune faute qui mérite qu'on aille à l'instruction. Donc ça, c'est clair et eux-mêmes, ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est illégal. Maintenant, euh, pour la deuxième question, euh, vous, vous demandez quelle est la deuxième question Oui, nous, moi en tout cas, j'ai rendu visite à certains d'entre eux, mais je les ai trouvés très euh, relax. j'ai pas senti une pression, c'est des gens courageux. Pourquoi Parce qu'ils n'ont rien fait. Parce que celui qui n'a rien fait, mais il ne peut pas se sentir en danger. Il ne peut pas être sous pression parce qu'il n'a rien fait. Ça veut si par exemple tu es en prison parce que tu sais que tu as commis une faute grave, tu as fait quelque chose qui est vraiment puni par la loi, cette personne-là peut être inquiet pour son avenir. Mais celui qui sait qu'il a été arrêté, arbitrairement, mais il ne peut pas être euh, vraiment sous pression. Donc je l'ai senti vraiment très libéré. Euh, ils ont discuté avec moi en rigolant, ils ont dit mais il ne